génnee maanaam bu ñu jógee ci nguur gi ñu mën di wéy hmm. eh, di eh, yore yooyu les passeports diplomatiques ngir di mën a génn ci eh, réew mi ak seen i conjoint ah. ñi nga xamante ni hmm. Hmm. am nañu maanaam passeport diplomatique yooyu jur na coow lu bëri nag décret boobu ndax dañu koy abrogé ndax bu fekkente ne abrogé wuñu ko rek mooy que ni ministre yi nga xamante si ñoom ñoo nekkoon ci yi Sall dañuy wéy di mën a bénéficier wu ci passeport diplomatique yooyu mën a génn réew mi ci xam ne si moo leen ko may noo jàngate tey coow li ak eh, ni ñu ko ni ñu koy waxee ñu nekk Diomaye président de la République dafa commencé eh, di eh, tënk ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon ñoo yoroon ay ndomba tànk te amoon passeport diplomatique ñu am ay jafe-jafe pour génn réew mi noo ko jàngatee. Euh, sama jàngat daanaka <coughs> lenn la ci mbir mi parce que passeport euh, diplomatique ñu ko tuuram di firndale mooy maanaam. passeport bi nga xamante ne normalement ab diplomate kese moo ko waroon yor. mais Sénégal gis nañ ko ñeneen ñi nga xamante ne euh, birum diplomatie daanaka xamuñ ci lenn wala boo ko xarañu ci du seen fonction ñoom ils disposent des passeports diplomatiques parce que finalement. passeport diplomatique dafa demoon ci euh, réew mi ba mel ni benn genre appât bi nga xamante ne c'est pour nga mën a wéy di jàppale ñi nga xamante ne ñoo toog ci donkaas gi ay privilèges ñu ñuy jox ñenn ñi nga xamante ne bokkuñu dara ak corps diplomatie ñoom ñëpp amoon nañu ay passeport diplomatique mbir mi dem daal ba nuroo li nga xamante ne euh, dafa mujjee incontrôlable donc di coup fale fallait nga régula régulariser ko nguuru Sénégal nguuru Macky Sall jëloon na sax ay dispositions. Mhm. mais daanaka disposition yooyu n'ont pas été suivies defee mhm. donc ñii euh, nguur gi bees bi ñoom ñëw nañu nee nañu euh, comme que mbirum passeport euh, diplomatique c'est un peu sensible on va essayer de d'arranger la situation jéem a xool naka lañ koy gën a sécuriser mooy maanaam képp ki nga xamante ni yoon nga passeport diplomatique balaa ngaa génn réew mi na doon. li nga xamante ne vraiment charte réew mi noonu la ko jàppee maanaam nga am benn autorisation. de de ñoom euh, fay ma ma doguma la pour pour leeral. Euh, euh, aéroport international. Mhm. Blaise Diagne. Mhm. léegi la ñuy fay mooy que ni képp ku yore passeport diplomatique soo ñëwee da ngay am ordre de mission. voilà ordre de de mission duñ la duñ la bàyyi. de mission nga am autorisation oh, mm. ñee jàpp ni c'est une forme de chasse à la sorcière. Mm-hmm. maanaam ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci nguuru Macky Sall te amoon fi ay ndomboy tànk. ñoom lañ ci euh, jublu pour maanaam mun leen téye ci réew mi euh, ñeneen ñi euh, jàpp ne demul noonu dañuy bëgg def maanaam sécuriser liggéey bi ak li ci mënta doon képp ki nga xamante ne daal ci disposer d'un passeport diplomatique te nga bokkoon ci gestion. président Macky Sall bu fekkente ne réew mi jugé na nécessaire ni dana la war a téye ci réew mi pour dégluwaat la xool la par rapport ak sa gestion je pense que c' est tout à fait normal c' est tout à fait logique c' une procédure bi nga xamante ne ñii ñi war nañ ko mën a accepter. Mhm. mais comme ni nga wax tamit da ngay passeport diplomatique nga xamante ne yow ministre nga tu as passeport diplomatique ba sa jabar yi ba sa sa jabar ñoom ñëpp que ñoo ñëw ils sont ko. Mhm. loolu tamit beneen cas la. si euh, l'un dans l'autre je pense que fu mu nekk nii. Mm-hmm. on a besoin de remettre les choses dans l'ordre Macky Sall bu muy dem il a signé comme ni nga ko waxee décret boobu. Mm-hmm. pour ñi nga xamante ne son sont détenteurs de ces pièces. mun a di voyager même après la fin de son régime. ñii gis ne peut-être loolu tamit dafa bëgg protéger ñi nga xamante ne xëy na ñooñu la àndaloon ci bu muy gouverner. Mhm. parce que c'est vrai moom il est comptable. Mhm. de la gestion mais aussi ñi ko doon jàppale ci liggéey bi ils sont comptables de la gestion mu fekk ni jamono jooju tamit ñi ngi signaler ay tooki diw na yu garaaw a garaaw ci lii ñel yorinu xaalis réew mi. Mhm. rapport Prodac baa ngi fi. imagine kenn ki nga xamante ne dañ ko peut-être tuumaloon ci rapport Prodac bi mu amoon cadre euh, diplomatique xam kon gën na réew mi mhm. gën na réew mi donc je pense que c'est c'est c'est c'est juste pour euh, sécuriser un d'abord la délivrance des pièces de passeport diplomatique mhm. de deux aussi pour jéem a euh, prévenir parce que au cas où euh, yow tu étais cité dans une affaire bi nga xamante ne ça parle de corruption ça parle de détournement de fonds pour au moins nga mën a toog ci réew mi ñu déglu la bu fekkente ne yow ci lu ñu lay tuumaal yow bokkoo ci bon tu es libre bu fekkente ni tamit def nga ko alors tu vas purger la pen selon loi bi nu mu ko tëralee. Mmh. donc je pense que mbirum passeport diplomatique bi. Euh, pour mu gën a leer il faut que autorités yi bees yi tamit ñu jéem a xool naka la ñuy contrecarrer le le décret du président Macky Sall. décret waaw parce que tant que defuñu ko ñee. on ne doit pas les arrêter. ils ont droit de voyager donc je ne sais pas comment Macky Sall naka la def benn nax autorités yi. ñu voté euh, présidentielle ba pare. moom mu ko di signer ay décret. mais euh, ñoom normalement il devait être au courant que Macky Sall est en train de signer yi nga xamante ne peut-être que ça va nous porter préjudice ñoom bu ñu ko xamee tamit alerté wuñu parce que Macky Sall boobu rek la signé ah. am na yenn am yeneen signé yooyu ñoo siw mm-hmm. mais passeport bi mu ngi soog a siw euh, fan yi ñu génn mm-hmm. mais ñoom fan la ñu nekkoon autorité yu yees yi bu Macky Sall di signé décret boobu mais bu ñuy dénoncé yeneen décret yi nga xamante ne c'est pas conforme la loi ñu dénoncé yooyu ñu parti passeport diplomatique bi même même yi mu jotoon a annulé. jotoon nañu annulé euh, euh, euh, Bassirou Diomaye bi mu ñëwee. waaw am na yu mu jotoon annulé. waaw bii nag li nga wax bii. bii bii tamit bii tamit. soog a jóg mais bii tamit c' est prioritaire. Mhm. c' hyper prioritaire moom mhm. comme ni ma ko waxee bu fekkente ni y' a de l' ancien régime qui sont pointés dans des malversations financières et qui détiendraient ces cartes nationales ces passeports diplomatiques ñoom ils ont am na sax ñu jot a voyagé déjà. si am na ñu jot a donc imagine toi que la justice dit que bon peut-être monsieur X vous devez parce que euh, sa gestion bi nga nekkoon ci euh, bànqaasu liggéeykaay bi lii ak lii lañ ci gis ci luubal kon yow mhm. comme que yaa nekkoon ci bopp war ngaa ñëw fekk kooku dem dem na way non kooku naka la ñuy def pour mu ñëw wala dañoo signé convention ak réew yi nga xamante ne bu ñu soxlaa ñooñu rek ay mandat d'arrêt pour ñu mën a ñëw mhm. mais l'un dans l'autre moi je pense qu'ils ont un peu euh, été am na ñu doon wax ne bu ñu euh, après élection yi déjà alerte yi commencé nañ déjà surveiller les aéroports surveiller les aéroports mm-hmm. parce que déjà on s'attendait à ce que certains dignitaires yi nga xamante ne peut-être ils ne se sentent pas trop trop en sécurité ils vont fuir te mm-hmm. noonu la demee donc je pense que autorité bon peut-être qu'ils vont elles vont se rattraper du a xool mbir mi naka lañ koy euh, gérer. parce que doguma la mais am na mën a jaar ci yeneen yeneen yeneen aéroport ah par exemple dem dem ba Gambie wala Mauritanie tout ça donc même bu ñu nu aéroport bi noonu la ñu war tamit surveiller transport euh, frontière terrestre si tamit parce mm-hmm. que voilà quoi qu'on puisse dire passer par euh, la Gambie jël avion dem wala par la Mauritanie comme on a di que Adji Sarr peut-être moom noonu la def. Mhm. dafa jaar ci benn pays limitrophe soo ko jël euh, avion pour mën a dem. donc c'est c'est c'était des cas de figure à prévoir mais je pense qu'il ne pas encore trop tard ñi fi nekkagum tamit bu fekkente ne sax war nañ leen mën a autoriser pour ñu euh, voyager bon je pense que ah. ils vont voyager du moment qu'on n'a pas encore euh, abrogé la la loi qui qui leur permet. Mhm. de détenir le passeport diplomatique et qui leur permet aussi de voyager. Mmh. donc c'est ça. d'accord euh, Bara yow noo jàngate coow loolu tamit euh, diplomatique euh, mooy passeport diplomatique yi en 2012 dundoon nañu ko ak Macky Sall daanaka moom retiré woon na sax passeport diplomatique yi yenn mhm. ci ay kilifa diine amoon na ba ñu bëri décrier ko tey ci situation boobu la ñu nekk ak le régime de de de Diomaye ñu commencé di sonal ñi nga xamante ni tey am nañu maanaam. këyit googu muy passeport diplomatique bi pour mën a génn réew mi noo ko jàngatee. waaw loolu déjà dañuy dañuy commencer par ñaawlu <clears throat> acte ak doxalin président Macky Sall parce que man li ma jàpp ne saboté la. non sabo sabo sabo sabote rek laa ko mën a jàppe parce que yow mënoo bàyyi ba war a dem parce que mi ngi waaw mi ngi mi ngi ko signé mi ngi ko signé le vingt-huit mars mm. avant que muy muy muy dem mm. ñeenti euh, ñeenti fan dese la presque <clears throat> ngay jël ay ay ay ay décret yoo xamante ni si tey gis nga problème ak coow yu mu yu mu commen yu mu yu mu commencé jur nga am yoo modifié indi ñoo xam ne ay anciens ministres ak euh, c'est leur conjoint ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne tey mm-hmm. dugalaat nga leen ci biir te euh, ñu définiroon clairement ñan ñoo war a yore passeport diplomatique bi booy génn booy déplacé ak fan nga war a jaar ak naka nga war a def mais yii nii yëpp bu ci amee ba tey mu commencé indi problème parce que déjà yaa ngi gis euh, cette député Adji Mbergane Kanouté bi nga xam ni mi ngi di crier heureusement que moom elle est députée. Mm-hmm. Euh, am na droit yore passeport diplomatique mais fi ne nit des Sénégalais bari mën nañ jàpp kay xëy na peut dañu commencé là-bas jaxase carte ji loolu il faut que mu leer moo tax ma jàpp ni moom en tout cas dafa manqué élégance républicaine boo xam ni c'est c'est c'est dañu ko dañu ko remarqué bu baax a baax avant que muy dem léegi nag euh, tey ñi nga xam ni les nouvelles autorités tey ñoom ñoo war a xool càmbaraat affaire yi parce que ci la ñu xam naa ni jot nañu am nañu abrogé te danañu gën a président Macky Sall sànq yaa ngi koy wax yi rek moom moo siiw te xam naa ni dina gën a après yeneen dina dinañu gën a dinañu gën a génn mm-hmm. parce que li mu signé ak li mu jël ci décret dafa mel ni bari na. Mm-hmm. mais xëy na bi yee moo ci fee euh, feeñoon. Mm-hmm. muy euh, ñi mu noom woon ci magistrature bi ak euh, cette fois ci nii. lii te bu fekkul woon yaakaar naa ni député bii nii. gi mu yuuxu doon na gën a sax doon na mañ a bane si siwee nii moo tax ma jàpp ni ñoom il faut que nañu jël si ay responsabilités parce que dañu leen dénk pour ñu defar. indi aussi tamit rupture gis nga passeport diplomatique nekkul ay affaire u caaxaan. ba euh, ku jóg rek war ko d'accord c'est pour faciliter le déplacement mais dama yaakaar que ni passeport diplomatique bi nga xam ni tey dañu ko wax clairement que ni ñi nga xam ni hmm. dañu nekk maanaam euh, di di liggéeyal état ñu définir leen clairement wala sax nga indi sànq yaa ngi koy wax hmm. euh, voilà autorisation bi wane que ni yow war nga def amal say déplacement war nga génn hmm. loolu bu ñu demee ba ba ba ciy dégg ñu naan sax am na ñoo xam ni peut-être doomu diw la wala doomu diw la wala euh, mbokk kilifa sàngam la yu ciy bénéficier loolu ça pose problème. Mmh. alors que moom sénégalais la comme tout comme tous les comme tous les autres sénégalais. Mmh. moo tax euh, ci côté boobu noonu ñu war ci euh, gën a taxawaat euh, pour que ñu ñu ñu indi ci waat ci ay joyanti yoo xam ni dina dina dina am solo baax a wax parce que ñu bari ñu wax te xaw ñun demee am na ñu bari ñu ciy bëgg a dañu nekk ci seen yoon parce que président mm. Macky Sall moo suñu mm. nekk ci droit wu yore ko dañu nekk ci yoonu yore ko. Mm. te pourtant bu ñu tegoon lépp ci yoon waroon nañ ko mën a bañ yor moo tax ma jàpp ni. président Macky Sall moom ci boppam maanaam moom vraiment ruubekat la. non ruubekat la quoi. parce que man man li dama jàpp ni ruube rek la ci jublu. non non non préparé terrain bi rek. Mhm. nga xamante ne ñooñu la ah, bokkaloon tamit. gestion bi mais euh, euh, c'est c'est c'est une façon de euh, maanaam permettre à ces ces ces ces ces anciens. Mhm. ministres la collaborateurs mën a fuite mhm. mën a mën a daw. mais loolu loolu mun leen. parce que fi mu ko defee <laughs> fi ko defee. moo fet xal gis-gis boobu rek nga mën a am. effectivement à quelques jours de son départ. de son départ parce que quatre jours de son départ nga signé décret boo xam ne si dafay permettre ñi la nga àndoon di liggéey ñu a bi. mooy jox leen euh, feu vert pour que bu ñu paree ñu daw dem génn réew mi. loolu loolu nag c'est un avant boo xam ni kon ça veut dire que ñoom ñoom luñ nekkoon ci réew mi. ba tax ñu assassiné mmh. ñuy wut amul porte de sortie ça veut dire que ñoom njuuj mm-hmm. njaaj yi ñu leen doon amaguñ ci firnde dañuy dégg rek parce que amul benn benn condamnation buñ ci am mais njuut njaaj ji leen soupçonné mm-hmm. mais lii nii ñuy tëral lii daf koy gën a firndeel ah, parce que bu fekkee defoo dara sàccoo defoo dara luubaloo looy fëri fëri ak tëb di dal bay ba jarala sax ngay jalgati euh, pour yow euh, mën a mën a mën a protéger sa bopp c'est ça moo tax xam li ma jaaxal ñi nga euh, xamante ne jamono yii ñoom euh, jot nañoo génn réew mi. Mm-hmm. ñoom ban document lañu lañu la ñu teg ci table. ay amuñu passeport ordinaire. passeport ordinaire tamit. waaw que boo passeport ordinaire am visa mën nga dem. waaw boo amee passeport ordinaire <laughs> kon tamit au delà des il faut ah. que ñu càmbalaat tamit euh, euh, comment on délivre les passeports ordinaires Sénégal. non passeport ordinaire moom soo amee nekk sénégalais. Mhm. soo nekkee sénégalais am nationalité mhm. sénégalaise. Mhm. am nga droit am passeport. mais li ma li ma ci jaaxal man damay gis ay ay étrangers yore ay passeport euh, sénégalais. Ah, mais parce que dañu am nationalité dañu ah oui donc voilà ah, c'est c'est toute la chaîne donc c'est toute la chaîne qui va falloir lu ba am ko xam nga kenn juddu yi ñeneen dañ koy jaay waaw waaw nga jël dem ñu defal la carte d'identité boo demee bureau des passeports dañ lay defal dañ lay defal passeport mm. nga dem ñaan sa visa ñu may la nga dem donc autorité yu bees yi liggéey bu ñu nar a ah, sumb ci fànn boobu daanaka du doon liggéey bu ndaw parce que bu ñu naree xoolaat qui est sénégalais qui ne l'est pas qui qui ne l'est qui mérite d'avoir une euh, euh une carte d'identité sénégalaise kii mérite d'avoir un passeport sénégalais mais bu ñu il faut que ñu càmbaraat bu baax a baax. fichier bi sénégalais yoo xam dañuy dem. Mhm. ñu ne jaay nañu seen seen extrait de naissance. jaay jox nañu ko keneen numéro ba jox nañu ko keneen. jaay nañu ko le mal est trop profond. Ah, voilà. le mal est trop profond donc voilà. Mm-hmm. les nouvelles autorités elles doivent vraiment euh, continuer ne pas lâcher prise parce que mbir tamit boo ko yëkkatee nga dem ba ci biir bu commencé gis yenn résistance boo ko bàyyee rek je pense que day gën a empiré wu. li ngay wax ni euh, gouvernement yi fi nekkoon jotoon nañoo commencé ba Macky Sall yaa ngi doon euh, wax sànq ne da jotoon na sax retiré yenn passeport diplomatique yi. mais fu mujjee ñëpp xam nañ ko. donc dañuy yëkkati benn mbir ñu bañ a saa Sall defoon naa en 2012. waaw c'est-à-dire retirer. Mm-hmm. ces ces ces ces passeports mm-hmm. ko si ñeneen joxaat ko ñeneen. ñeneen ñeneen voilà. loolu amul amul amul njëriñ c'est-à-dire dañu ko war a jox ñi ñu ko war a jox. ñi ñu ko war a jox tey ñoom jàpp nañ ni. bu ñu mm-hmm. génnee Sénégal bu ñu génnee réew mi eh, dañuy représenter. voilà le Sénégal ñooñu lañ ko war a jox moom loolu moom mooy diplomatie mais tey baa di ku jug rek ñu jël passeport diplomatique jox la Euh, ngay dem di ko naandaat fu la neex nga dem ci àdduna bi <coughs> dem ba dañuy banaliser sax euh, le passeport diplomatique sénégalais parce que benn benn jamono tamit am na pa am na aéroport yoo xam ne si ni soo fa demee sax yor passeport diplomatique sénégalais dañ euh, am ay jafe-jafe parce que tellement dañ ko banaliser woon tout le monde ñëpp yor ko mu nekk un problème donc bu ñu bàyyi Kébé mu continuer après ñu ñëwaat ci ci ci loolu non dama dama doon wax man ne tey jii ñoom ces ces ces autorité ñooñu maanaam li tax ñiy tëb di dal nii ñoom dañuy tax état bi bon Sénégal yi gën leen a soupçonné ah ñoom ci ñoom ci sax parce que ñoom ñëpp ñu ñu ceddi seen i mbir càmbar seen i mbir parce que bu fekkente ni euh, lii nii loolu la président Macky Sall jul pour permettre leen ñoom ñu ñu mën a teel a daw. génn mm-hmm. réew mi. Mm-hmm. fu leen neex ñu dem saa veut dire que euh, li yenn ci Sénégal doon njortu ak doon ko dégg ci ñoom te am na ci yoo xam ne sax ay rapport Cour des comptes ak euh, yeneen ak yeneen ñoom ñoo ñëw am lu leer nañ loo xam ne bind nañ ko teg ko ci table ji yoon def ci li nga xam ni moom mooy liggéeyam parce que yoon nag moom moo am sañ-sañu ni diw yaa def wala defoo mm-hmm. loolu il faut mu leer moo tax ma ni ñooñu noonu kon tey ñu ñu gaaw ci seen i mbir lañ xool leen càmbar leen euh, kenn ku ci nekk te dèjà sax yaakaar naa ni comme euh, njiitu réew mi sàkku na ko euh, ñu xool leen parce que pour ma lii avala boo xam ni dafay firndeel ni ñoom defu nekkuñ foon lu jub ba tax seen i fit mënta toog mënta dal à ce que ñu resté fi la nga xam ne moom moo di ci réew parce que bu fekkente ni dañu la dénk dara nga

de passeport diplomatique au Sénégal. ne pas lâcher prise comme que commencé nañoo liggéey bi nañ dem ba ci cappaandaw ga ñi nga xamante ne ñoom ñoo mérité yor passeport diplomatique. te il présente les garanties ñoom ñu jox leen passeport diplomatique au delà de ça bu ñu joxati kenn passeport diplomatique. na diplomate yi kese kese ñi nga xamante ne ay diplomate lañu. comme ni nga ko bu ñu génnee euh, nañ dem représenter réew mi. Mm. nañ leen jox ñooñu passeport diplomatique au delà de ça. tous les sénégalais restent ku nekk nga am passeport civil ku nekk si sénégalais nga am passeport civil. Hmm. passeport diplomatique comme que diplomatique tuuram noonu la ko kiiwee ñu bàyyil ko diplomate yi comme ça defe naa bu ñu ko defee. une bonne part ñi nga Sénégal Sénégal génn réew mi représenté le Sénégal. voilà liggéey yóbbu leen fi mais pas pour seen i fi bopp. voilà ñooñu la ñu war a jox passeport diplomatique au delà de ça que tous les Sénégalais soient égaux devant euh, l'obtention des passeports yi nga xamante ne civil lay doon. defe naa bu ñu defee noonu on va bien clarifier le jeu mais tant ñu ngi jël passeport diplomatique yi di ko dem jox ñeneen ñi nga xamante ne ñoom yelloowuñu ko un d'abord. day indi sax li nga xamante ne mooy frustration. parce que tu te dis que pourquoi jabar diw am kii ko jabar kee amu xam nga day indi frustration. loolu bu ñu ko defee on va laver la les sénégalais ñu war a yore passeport diplomatique yi ñu jox leen ko ñu war a yore passeport euh, civil yi ñu dem wutal seen boppa